yonent bi lu moo tax yàlla ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galisa alqalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum wa shaawirhum fi l amri ida azamta fa tawakkal allah kooku Ali Imran la mu ngi ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu mooy nooyal sa jikko ah, yi janoog ñun ci kaw lii nag ci boromam ak gëm yàlla la goo xam ne gu dëgër la waaye gu sax la ñu mu daan jaare ci yoonu yàlla joxe ba bakkanam ak alalam itam noonu beneen ba moo di ne fokk nuy dimbalante ci lu baax ak topp yàlla yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa daan dimbalee képp ku ñëw ci moom donte ku bon ci moom la sax ki ko xañ sax da ko daan jox ndax alquran moo ñu waxoon ni wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alismi wal udwan suratu maayida la mooy ay ñaar ca bopp saar wa solidarité waxoon ko ci waxtaan wi weesu ak wéeruwante ak dimbalante dimbalante lu baax la rawaate na ci ulama yi ngeen dimbale leen ngeen dimbale asatise ngeen dimbale ndongo daara ngeen dimbale ñiy jàng ndax ñu mën a jàngale ngeen dimbale leen ndax ñu mën a toog bind jàng jàngale waar doomu aadama yi jubbanti leen ngeen dimbale leen ndax ñu mën a taxaw ci amru bil maaruf wa nahyi anil munkari digle lu baax tere lu bon kon nag mu ngi mel ni lii nga xam ne ay jullit yu bare nga koy def ah ñii di ko def ci jàkk yi ñii di ko def ci jumaa yi bu koor gi jotee ñu bari di joxe ay suukar ñi di joxe li nga xam ne moo di ay ndogu su ma waxee joxe ay ndogu nag waxuma ni gune yi daf taxaw ci mbedd mi di yalwaan ay xaalis di ko séddoo wala defar kafe gu amul suukar wala di ko joxe ndogu ba pare te yow wóoruloo amul benn njëriñ yàlla du la fay dara yàlla du la fay booy joxe ndogu te wóoruloo bokkoo ci ñëw woor duñ la fay dara ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin alquran daf ñoo wax ne yàlla du nangul lu mooy ki ragal yàlla te ki ragal yàlla buy mu kalaf day woor mu kalaf mu wóorul ragalul yàlla kon loolu muy def tuddee ko yàlla diinu minhu bari lislaam yoonam nekku ci bokku ci mbiram boppam rek la euh, naka noonu euh, gis nga yàlla dina dimbale diine sax ci ab kàccoor ab kàccoor mën naa dimbale diine donte duñ ko fay dara ëllëg naka noonu euh, jullit ñi nañu jàppalante di dimbalante digle lu baax tere lu bon wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkari kooku tawba la ay juróom-ñaar fukk ak benn beneen bi ci jikkoy julit moo di maando tàmbali woon naa ko maando daal mooy nga yem ca la nga war a def rek te mu dëppoo ak sunna mu dëppoo ak nga rafetal ci bindee fi yàlla yi nga dimbale booy dimbale na nga dimbale ñi lay jege ci deret wala ci bokk wala ci dëkk na nga rafetal sa njaboot ci sa njaboot d'abord fexe ba ñu am dund fexe ba ñu am kodd fexe ñu am jàmm ci yow loolu mbir la moo xam ne ci ngay njëkkee moo tax alquran di ñu wax naan yàlla day dafay digle am maandoo ak rafetal ak ki la jege nga jox ko dimbale ko yàlla ngi tere lu bon ak luñ sib ak ak bew ak ak réer kon lii la ñu yàlla waaree ne mooy jikkoy jullit ndaxte lee tey nu waaru inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaai dil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar wal baghi yaidukum laallakum tadakkaruun kooku sooratu naxli la ay juróom-ñeent fukk beneen bi moo di ne bokk na ci jikkoy jullit juñ bëgg nu di ko def mooy ñuy def taw ji ñuy jubale wax ju baax ak wax ju rafet ci nit ñëpp xam nga sa mbokkam julit boo waxee ci moom lu bon dana ko dégg boo ko ko jëwee dana ko dégg tôt ou moom kay da koy dégg fekk ñu yokk ca wala ñu wàññi ko fokk dina ko dégg kon nag da leen wax ci julit ñi lu baax comme ni ñu ko alquran sante wa qulu linnaasi husnan kooku suratul baqara la ay juróom-ñett fukk ak ñett lii bokk na ci jikkoy julit beneen bi mooy nañu tawe nañuy joxe ki am dara na joxe na dimbale kii ñàkk wala mu néew doole nañuy muñit bu ñu tooñee ñu ñàkk fayu nañuy bale yonent bi saa sallam dañ ko daan tooñ mu bale ñàkk fayu tey bu ñu gaaw di mer même yonent bi du mer mukk lu mooy ba te ñu jàggatee diine wala ormaam kon nag gis nga ñu ngi tagg ñi nga xam ne dañuy joxe bu ñu amee ak bu ñàkkee naka day day ñu comp ca joxe ak ñi nga xam ne suñ meree dañ koy nëbb ba duñ jëfandikoo lu bon ak ñi nga xam ne dañuy bale doomu aadama yi buñ leen tooñe ak ñi nga xam ne ñoo def ihsaan mooy di jox nit ñi ak di leen dimbale alladina yunfiquun fi sarraai wa darraa walkaazimin algays walaafina an innaas wallahu yuhibu almuhsinin loolu mu ngi nekk téeméer ak eh, ñette fukk ak ñeent ci sourate Al beneen bi mooy ni ñu dëgëral suñu bokk bokk gi ñu bokk diine nañuy dox itam pour yewenal diggante nit ñi ni ko yonent bi defee woon foo gis lu yàqu demal nga defar ko mën ngaa ñëw ci ni sax ne ko diw daal lu baax li muy wax ci yow donte waxu ko fenn woowu dañ la ko may dañ la ci fay sax aw yiw su ko defee bu ko meree woon sax da nga gis mu commencé wàcc diw daal li muy def ci yow li muy wax ci yow lu baax la vraiment même bu ko meree woon la mu bañ ko da nga gis mu wàcc si noonu la yent bi defoon diggante aw sa xës rek fexe ba bokkale leen fexe it ba bokkale diggante muhaajiroon ak leen saar moo tax alquran waxoon nañu ko innama almuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wattaqu llah laallakum turxamuun ragal leen yàlla ndax ci lay tey mu yërëm leen fukk la ci suratu xujuraat euh, bu ñu deeyaale itam di euh, woo wootante ndéey beru fale di wax di déey ci lu yàq beru fale di réunion wala di daje loo xam ne dafay yàq dëkk bi dafay yàq diine ji dafay yàq réew mi wala dafa yàq ak bokk loolu dañu ko tere waxtu wuñ dajee di déey rek na fekk aw yiw la ak luy jëriñ diine jéeg dëkk bi dañuy génne itam sarax ak defi defar diggante bu yàqu yonent bi sallallahu alayhi wasallam day moom daana tere ñuy deyalee lu may ci jàmm nee na ñett sax bu ñu nekkee ñaar ñi bu ñu beru fale di diyey wacc fa kenn ki njortam dafay ñaaw laa xayra fi katiri min najwaahum illa man amara bi sadaqa aw maaruf aw islaax bayna annas kooku soratu nisaa la téeméer ak fukk ak ñeent li yëpp nag buñ koy teree ci déyalee mooy ragal aw ay rek mbokk jullit yi euh, bokk na ci jikkoy jullit nañu dëddu fo ak na nañu dëddu fo ak caaxaan ak ay mbóosóor nañ ko dëddu ab jullit du sax ci ay fo ak i dama koy wax xam naa dañu naan sax imaam bi xam naa dafa tardé ubbi sa benn télévision te yaa ngi ci weeru koor ñuy tëgg di fecc di seetaan ay ay yarami ay jigéen yarami ay góor ak col goo xam ne kenn sant ko te yow da woor nga yaakaar ne yaa ngi ci dara naan da ngay dàq koor dëgg la yaa ngi dàq koor gi ndax day day dem day sori day dem dootoo am aw yiw liñ la waroon a fay ci yiw yëpp duñ la ko fay loolu mooy caaxaan yi nga xam ne toujours dañ koy seetaan bu lamb jote wala bu tëgg ak fecc jote yow yaa ngi woor loo seetaane loolu sab yool day wàññeeku jàngalal Quran mënuloo ko demal nga julli ji mënuloo ko demal nga liggéeyi mënuloo ko demal nga nelawi lan nga seetaane ay caaxaan ba mu di la fàttaloo yàlla wala ngay sànq waxtu yi waxtu yàlla yi loolu yëpp bokk ci jikko yi jullit dañ ñu koy tere kon nag alquran a ñuy wax naan texe na day julit ñi nga xam ne ñoom ay caaxaan dañ koy wan gannaaw qad aflaha almuminuun allazina hum ani laxwi muariduun julit ña texe nañ ñi nga xam ne ay caaxaan dañ koy wan gannaaw xam nga lu gën a wóora di mooy nga ubbi sa benn télévision muy tëgg di fecc chaîne bu mën a doon ak di defi caaxaan ak ki cabax cabax nga nekk ca nekk ca nekk ca nekk ci ba mu guddi nga dem tëri sa esprit yëpp li ci mujj mooy ay caaxaan gis nga guddi googu boo ci deewoon doo texe doo texe moom daal fekkee mënoo ko ñàkk def ci tere nañ la ko boo ko defee eh, balaa ngaa tëddi jàppal au moins nga julli ñaari rakka dellu ci yàlla loola mujj ci sa esprit waaye nekk ci télé bi rek muy bajax bajaxi ngay seetaan ba mu guddi rek ba nga nelaw foofa door jëm nelaw yi loolu dañ la koy tere bokk ci jikko yi jullit bokk na ci li nga xam ne kenn tànn ko beneen bi moo di na jéem a rafet jikko muy makaarimul axlaaq mooy buñ la tooñee nga ñàkk fayu ndaxam am buñ la tooñee nga fayu amuloo bàkkaar waaye martaba bi ñuy tuddee makaarimul axlaaq àggagoo ca way naa aqabtum فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به waaye wala in sabartum la huwa xayru lis sabirin ndax lii la muy téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ca saar wa naka noonu toroxlu wàcce sa bopp muy modestie ñàkk puugare yu ci kanam nit ñi yonent bi sallallahu alayhi ku wàcce woon boppam la waaye ku bëggoon nit ñi la loolay jikkoom loolu la ñu sant bul wan nit ñi gannaaw bu leen wan ab lex xool leen nooyal ak ñoom na nga def ak ñoom jàmm bul rëy rëylu ci kanam nit ñi doo dara wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxan innaka inna allaha laa yuxibu kulla muxtaalin faxuur wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxan inna allah la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur luqmaan la bu muy dénk doom ji aaya fukk ak juróom-ñett ah mbokki jullit yi bokk na ci jikko yi ñu bëgg jullit yi jikkoo ko mooy ñun ñëpp nañu bëgg jàmm waaye ne ñu sukkandiku ci yàlla xam ne mooy maye am na koo xam ne dàqoo koo kër kër yi mu ëppale la am na koo ëpple dàqoo koo kër kër yi kon yàlla mooy maye kon nañu ragal yàlla te rafet nu ñuy sàkkoo ni ñuy sàkkoog ni ñuy fàggoog ni ñuy wutee nañ ko rafetal na jaar ci diine lu xaraam buñ ko jënd buñ ko jaay lu ñu tere nañ ko bay nañ bëggal jullit ñëpp jàmm ku nekk na nga bëggal sa mbokkam jullit li nga bëggal sa bopp te bëggaloo sa bopp lu bon moo tax yent bi dañuy wax naan laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi muttafaqun alayh kenn ci yéen duñ ko nangul ne gëm na yàlla lu mooy mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam muttafaqun alayhi te it xataa ki ngay xulool di ko xeexal xataa bu fekkoon guerre la seen diggante buñ na jàmm nangul jàmm xam nga guerre kenn du ko gañe Léopold laa déggoon muy wax bu yàgg naan ge xeex bu jotee il n'y a pas de vaincu ni de vainqueur amul kenn ku ciy gañe ñëpp rek ay perte kii gañe ba ëpp doole perte na ay ruuxu ak alal ki ñu gañe it wax a noppi kon guerre baaxut xeex bu nekk ci toog waxtaan lay mujj kon nag wa in janaxu li salmi fajnax laha wa tawakkal ala allah innahu huwa samiul alim bu ñu jéngee jëm ci jàmmoo daal yow ma jiite réew ma it jéngal jëm ci jàmm te sukkandiku ci yàlla beneen ci jikko ju baax ji mooy nga muñ li la nit ñiy wax xam nga ko am solo ku nekk da nga baatu gannaaw léeg-léeg ñu saaga la léeg-léeg ñu xas la léeg-léeg ñu ŋàñña la léeg-léeg ñu dëkkal la foo dëkkut ku nekk rek am nga ko ko am solo ku ne am nga ko waaye gis nga dof bi sagar ci mbedd mi kenn du ko kenn du ko ŋàñña kenn du ko xas kenn du ko wax dara waaye boo amee solo ah fokk ñu lay teg ay baati gannaaw kon nag ku jiite am réew da ngay muñ de lu nekk ngay jégg waaye ku jiite mboolo yi da mu lu nekk ngay dégg barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan